Amadou ñu ngi siyaar bu baax. ñu ngi lay delloo siyaar. waaw tey ñu ñëw rek fekk leen fi nga xamante ni tey yaakaar naa dañuy doxantu rek xam nga. waxtaan boo xamante ne bëggoon nañ ko séq ak yéen mu xew ci jamono ji wàllum góor jigéen yi fii ci Sénégal. wàllum góor jigéen daal moom doy na waar torop torop torop ndax ñun suñu maam yi xamuñu woon yooyu yeneen xeet ñoo fi ñëw indi fi yooyu incité suñu doom yi ak suñu sët ba ñu commencé yàqu loolu daal war nañ ci jug bi war na cee wax waaw. loi bi war wax mais mel na dañoo am jàppale fii ci réew mi de ba tax ñu am sañ-sañ bu ne. waaw loolu lay nduru parce que dañuy def fi ay conférence ñu leen di défendre rek di leen a kéeg yooyu noonu ah, yooyu baaxul fii dëkk jullit la ah ay ay nit ku baax ñoo fi dëkk ay nit ku baax ñoo fi tëdd yooyu war nañ ko xeex war nañ ko war nañ ko lijjanti waaw président Macky Sall tamit war na ci jël ay mesures ba assemblée fépp parce que loolu du dëkk du yoon waaw loolu ku koy def ñun duñu ay tubaab du ñu ay nasaraan waaw nasaraan yi ñoo am liberté boobu foofu seen dëkk yi ñun amuñu ko fii fii dañu am yar kon nag loolu luñ fi war a jëlee la. keroog ñu gis vidéo boo xamante ne ñaari doomu sénégalais di ay góor di sëy Sénégal yëpp jot ci tey naq loolu naqari na senegal waaw loolu kay xam nga ni kooku kuy nit dana la naqari man ñooñ sax dama foog ne amuñu waaju ci réew mi xana ndax boo nekkee ñaari góor ngeen di sëy bañ koy wane ay vidéo yooyu yëpp ah axiru zaman de kon ñëw na. le pays va mal ak yeneen ak yeneen yu ñu mënul wax am yeneen ak yeneen du question a garaaw. bu dul trop fii si waaw bëri na doole trop mais loolu loolu lépp li ko waral mooy euh, góor gu nekk da nga war a gëm sa bopp te bàyyi tamit aussi lii nga xamante ne nii mooy lu yomb parce que lu yomb baaxul alal yi alal yooyu man bëgguma sax di jaar si tur woowu parce que l'islam digaluñu ko ko mais li ma ci mën a wax daal ci xayma mooy kilifa yi diine yëpp wax nañ ci mag ñëpp wax nañ ci jigéen ñëpp wax nañ ci mais. dafa doon loo xamante ne nii nit ku nekk xax ambition parce que Sénégal doon na dëkk boo xamante ne nii rëyul nit ku nekk yaa war a doon sa exemple bopp parce que jigéen ñi sax ñu si bari ñu ngi bëgg a doon góor mu tëleen kon tey jii man bu ma gisee góor goo xamante ne nii day jigéen jigéen lu wala muy def benn manière boo xamante ne nii manière jigéen la man kooku ay ree la may def wala dafa jàngul sariya diineem parce que ku jàng sa sariya diine man yaakaar naa ne benoon beneen méthode dina nekk sa bopp lu dul boobu. parce que ñun duñ doon dégg góor jigéen mais léegi dafa mel ni dañoo fësal seen bopp parce que keroog gis nañ vidéo boo xamante ne ñaari. loolu lépp loolu lépp li ko waral mooy euh, manqué kilifa rek parce que euh, problème yi bu amee gouvernement bi ñoo ci waroon taxaw parce que ab Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee woon euh, moom lii xeex na ko ba sonn bañ na ko ba sonn kon tey jii beneen gouvernement bu ñëwee même manière di am ah ci affaire yi góor jigéen yi. loolu gouvernement bi moo ci waroon a xar ay tànk tubéyam dox ci ay jéego parce que Sénégal dëkku diine la. Sénégal dëkku diine na bu ñu paree si góor jigéen di ñu ne dëkku lislaam la nekk dëkku jàmm xam nga suñ maam yu baax yi bàyyi fii jàmm joo xam ne yeneen réew yi kenn amu ko quoi kon tey jii bu ñëwee ba jamono ji ñu ne ñoo ngi ci 2019 ñu ne góor jigéen day yàq senegal loolu moom nekk na loo xam ne rafetlu wuñ ko ba pare xale yi tamit. nañ nañ moytu di seetaan ci internet bi xam ñu leen di yàq xam nga parce que nit jullit boo nekkee ab jullit chrétien sax diine chrétien sax dafa bañ loolu asumaak nga nekk musulman nekk bokk si xeetu euh, Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon yu bëri da nga ko war di moytu di moytu sol bi xam nga wax ji whatsapp bi yàq na yàq na doomu aadama yi quoi wax ji waxu whatsapp bi xam nga ku nekk jigéen ñi fii nii ñoo la yàq parce que da ngay wax da gis góor goo xam ne buy waxaayoo sax geste mi def da naan góor jigéen la quoi. jafe na léegi nga gis góor yàlla xam ne kii góor yàlla tigi la jafe léegi suñu réew. jafe na jafe na doxee nga xam ne ak nga nga comparé ko ak suñu mag ñi njëkkee bokkuñu nga xam ne léegi yi saa nii mi ngi jëm ci yàqu ko parce que xale yeeg xale yu góor yeeg jigéen ñeeg dafa yéeme daal kenn du xàmmee góor gi wala jigéen gi.